yan din ab feeña yan din ab feeña yan din ab feeña bi ci biir àll bi am na pël bu fay sàmm ay gaynde ci gaynde yooyu moo jël ma ci ñaari karaw ñu indil ma ko ci tafa di mhm. ciy daam di wili na wuy njoxoy ne njoxoy ne jógal nga indil ma karawu gaynde bi ah, aleejo woni ƴetti fetel mum eyi ina abbe barottoya ina ɗi heeɓi waroy eyi yawat feere mbaɗa kattude bawal ma woto war hen hay ndiga aga def fexe mhm. ba gaynde yooyu noon mujjam mujjora e benn le 6 novembre ci arène nationale jàpp sa seen affiche point com di seetlu Moustapha Gueye ci plateau bi ak ñu ko dar ñu di wax lu leer naññ lu mel ni lañ set tey ci bët duma tey ñëw si miñ gàll ci loos duma tey ñëw gaynde gi sama kanam duma tey ñëw moo war a dal ñaari mbir yi ginnaaw bi na la ñebee kon boog tëf. tere ba jigam ngeen woon ayca ayca Reug Reug de Doss la préparé yéen ak volontaire waaye su ma leen kii eh booy waral nga formalité yi ci war a sànq waaye nag ayca ayca ayca ayca

ànd ak suñu waa kër Papa Tom Seck Gueye yéen yéenay gënalu Gaston Xale Mbengue peut-être pas mooy kii Dagan doxalal waaye yaakaar naa Karim cinq combats cinq victoires Bébé Balla ay Ambrose, le préparé. Merci. Ah. Gandiane Faye deux bu rëbës moo koy bëre arbitre sifflé na gën seen diggante Gandiane Faye deux waa rëg-rëg bu rëbës ak frontière ndeysaan rek rek bu rëbës moo feere suñu ndijoor frontière feere suñu càmmoñ arbitre siffle na génn seen diggante ña ngay lewanto ndeysaan ñu ngi nuyu ñëpp mbokk internet Lutte TV Lamine nee na ma jóg Mouhamed nee na ma arrière ña ngay lewanto frontière cokkaas na loolu rek fayu na góos ndeysaan gara coach nee na ko déedéet frontière cokkaas na Reug Reug dox ci kawam Reug Reug dóor ko Ah, frontière daan na ko kadapé daan na ko kadapé frontière daan na rëg rëg rëbës Cheikh Diop ma koy jëli maa nuyu Jokal sama xarit bi moo may ay ay ca ay ca ay ca ay final soirée ndeysaan ngel jonn numéro moo koy bëre ak Pape ngel jonn numéro moo ñu féete ndijoor Pape moo ñu féete càmmoñ arbitre sifflé na ñu ngay arbitre sifflé na ña ngay lewanto Nguel Dione numéro 2 Nguel mépp na Pape dox na ci kawam Nguel reculé daa reculé reculé il faut il faut reculer pour les mains sautées ndeysaan waa jël tarki daa moo ma jàngal loolu Pape daw na ci kawam jiital tànk droite Ngel Joli jël tànk gauche dóor na ko ñaari ko Ngel fayu Ngel day laaw ndeysaan Ngel dóor na ko koobu dal Ngel jël na ko daa diis Ngel jël na Pape Pape resu rëcc ñu ngay wure ndeysaan Pape moo ñëwoon ginnaaw moo def ngéem bu rouge ndeysaan kuy kuy kuy dal na morso ba wadd boobu sëriñ am na lay morso ba wadd na da ngay bëree Nguel Dione numéro ngu ñaan la dëkk ak Pape Pape Sos wala Pape Sos Pape caxabal na ko mu rëcc xale yaa ngi bëre ndeysaan Pape bët na door na ko caxabal wër na ko ndomba penalty la da daan wala ma ngi koy dóor oh, bul soo ko mayee daan rek daan ko oh, Pape daan na ngel ndeysaan Pape daan na ngel John jël Pape Dada Gueye. l'enfant de parcelle. waaw l'enfant de parcelle. maa ngi koy nuyu en passage ah. waaw man rek maa ci des jàmbar man rek. ñëwaree ñu lëkkaloo ko. nga jox ma li ma tere nelaw. wax gi jeex. kuréel bi foog nga lonkoo ko. non su ma ko lonkooyee. après bëri amical moo am bëri amical. gars yi nee nañ nag gars yi nee nañ nag kenn du ko nangu ci moom. ah. nee nañ bi kenn ko nangu kenn ko nangu ci man. la gars lay ñaan yàlla. xam naa gars yi loolu ñu xam tax instant nii. bëgguñu mu bëre royal ah ñuy daw. combat noonu ci géew bi. oh. la commentaire la combat. bu neex la de. booy yaa ngi joxoon. booy waral nga booy jox. ku daw wàcc am dara ku daw. door nañ ko mu daanu. booy jooba daan. booy jooba daan. tey. waaw jërëjëf Lamine kontaan nañ bu baax. nga xam ne gara combat baa ngi ci digg géew bi. kontaan naa Cheikh Lat Diop rendez-vous boobu le la fii ci arène diggante Tapha Mbeur ak Gamou Gueye ñu ci ànd ak waa Yaram Art Events idi nekk ca bopp ñaar ñu nekk ci géew bi war a dox ci diggante Ambroise ak Sa Ndiakhar Sa Ndiakhar Ambroise Ambroise mbëru Yaxya Seras moo féete seen gauche mooy sëgg di siggi ambu arbitre sifflé na diggante Ambroise Ambroise bëre na fi yàggul dara combat bu metti woon moom Ambroise moo ëpp saa njaxar lay bëreel ñaari mbër yaa ngi ci xanaa du njaxar ba ma xam am mbongoogu moog saa njaxar pied ak pied droite ñaari mbër yaa ngi di leewaatoo fii ci arène nationale ñu ànd ci ak Djibson production mbokku amateur kontaan nañ ci yéen bu baax a baax di leen béggee kuy wax kuy déglooy mbokkam ñaari mbër yaa ngi ci ah. parce que Ambroise boo xoolee dafa ni tekki di ko déglu Sa Ndiakha bëggul caaxaan ak combat parce que boo xoolee mooy spécial bi ta géejawaay la jóge di doomu jaxaay mais géejawaay la jógee mu nekk xale bu mën a bëree moom Ambroise ndeysaan ñaari xale yi ñi di géew bi dagg na lewtoo bi moom Sa Ndiakhaye dagg na lewtoo bi Amara Sa Ndiakhaye ñaari xale yi ñu ngi lewtoo ndeysaan ñu ngi sànnante loxo mais ba tey songante wuñ xeexuñu combat xale daa war a gaaw combat xale daa war a gaaw ah Sa Ndiakhaye Sa Ndiakhaye boo xoolee arbitre mu ngi naan leen bëre leen te mu ngi guddi boo xoolee lamb yi fi am fan yëpp day gaaw mais tey dafa xaw a yéex ndeysaan xale yaa ngi song ñuy xeex diggante Ambroise ak Sa Jaxaay ndeysaan xale yi ñu ngi dóorante ñuy xeex tamit. laay la daan na ko da koy daan wala lan. arbitre nee na dara amul. waaye Sa Jaxaay waay Sa Jaxaay Sa Jaxaay ak Ambu Sa Jaxaay ar bi sifle Sa Ndiakhate ak Ambou ñaari mbër ci xeexu guñu ba léegi bëree guñu songu daal fi am benn songo fi am ñu daw génn saako yi arbitre woowaat waaye dinañ xeex dinañ bëre parce dañ leen a fay ndeysaan te ñaari xale lañ bëgg juum di ci diggante Ambroise ak Sa Ndiakhaye ndeysaan Lamine xale yaa ngi lewtoo ba tey kur fañ seen loxo laalanteegul dañuy lewtoo rek bàyyante ñaari mbër yi benn song moo fi am ñu daw génn saako yi arbitre woowaat leen ci digg géew bi. le 14 janvier bu leen ko fàtte diggante Sokh ak Marley. combat bu neex la 14 janvier. di nuyu es bu Sokh. ndeysaan nuy waa kër Marley yi di nuyu waa kër Sokh di leen wax lamb ju neex a noonu. ndeysaan gasoo meng moo ko tëgg sunu papa ji ndeysaan makana ngi ci kaw nga xam ne moo indil bisu boobu noonu mu combat bu neex arbitre xale ba song na léegi mais demul Lamine ndeysaan maa ngi nuyu Awa Diop di ko nuyu bu baax a baax ndeysaan di nuyu waa Touba yëpp. Awa Diop bu Balla Gaye 2. Awa eh, dem na xale ba dem na waaye ba tey day jokkaas rek. mais Amourass tamit dafa taxaw rek dër. déglu dafa mel dañ kaa taxawloo boo xoolee li am yëpp Sadio Ndaxam moo koy def mooy diriger mooy daw songu génnaat mais Amourass dafa taxaw rek dafa mel dañ koo taxawloo daga na lewtoo bi moom Amourass ndeysaan Lamine ñaari xale yi ñi ci digg géew bi waaye Lamine xale yi jekk nañ de. boo jekkee nag da ngay bëre jekk rek. waaw boo jekkee da war a bëre. rek taxaw ni jodd. jodd rek taxaw. ndeysaan dañuy bañ a juum cey làmb daa metti loolu du ma ko nangu. daa metti Lamine lamb daa metti xale yi sóoraale bari mbooloo mi ne seen ginnaaw at bu ñibbee lan la ñu wax waa koñ ba ndeysaan diggante Ambroise ak Sa Ndiakhaye ñu ngi ni teg waykat rek ngay dégg ndeysaan cee làmb waaye cee le 6. cee le 6 novembre diggante Papa ak Siteu fii ci arène nationale waa ji nee na ko yal min a feeña. eh yal min a feeña waaye cee Papa ndaamali. ndeysaan Lamine lamb ju neex a ngi noonu di ci nuyu waa jàmbaar di nuyu Mor Parcelles ndeysaan di nuyu xaarimanta Seck ndaamali Siteu nijaay ji nee na ko yal min a feeña yal min a feeña mooy borom dëkk bi kaaw lam ko wax mbaa fàttewu ko kaaw nee ko fexeel bu ci rey bu mu ci rey benn gaynde ndeysaan tey loolu mais wala li def nañ lu garaaw Lamine ñu ngi dundal lamb de kaaw nee ko waaw demal nga sàmm gaynde te bu mu ci rey benn gaynde waaye la ka nijaay ba wax nee na ko fexeel gaynde yooyu nañ ci rëbbu waaye nag Siteu dina rey ci gaynde yi. nijaay ci karaw la ko laaj karaw karaw gaynde. karaw gaynde ndax Papa Sow dina bàyyi ñuy ñuy dindi karaw gaynde gi ndeysaan ndax Papa Sow dina nangu loolu waaye cey Siteu yalmin bi doomu jàmm bi bu jugee tarki ndaay topp ko. Ambra Sa Jaxaay oho Grand Idy maa ngi lay nuyu borom yaaram aar events ndeysaan Amra sa jaxaay xale yi sa ñuy diggee ba tey ndeysaan Amra sa jaxaay Lamine ñu ngay lay too bàyyante diggante Amra sa jaxaay ba tey dara xewagul ñaari xale yi mais Amra dafa ñëw rek tee boppam Sa Jaxaay dagg na Leewtoo bi Ambra ndeysaan oho cey ca ndeela mbirkilaan oho Ambra Sa Jaxaay Leewtoo damantay baaraam bàyyante ba dañuy coos rek ñoom ñaar ñaari mbëri di dox diggante Ambra arbitre na leen bëre leen waay Xooxoo dem na léegi moom Sa Ndiakhaye dugg na ci garde bi génnaat Xooxoo cokkaas na moom Ambras ñu ngi daw jël tànk bi luy xew ndax dooju na ko Xooxoo Lamine xale yaa ngi bëree mu ngi door moom Ambras Ambras am koy ziar mu ngi cokkaas door na waaw waaw njargan daloon moom bëtt na ko luy xew ndax du yanu ba ci kaw door suuf Sa Ndiakhaye Ambras daan na la daan ko Ambroise daan na ko ko ba biir bi mu door ko seeraas waaye xoolal mbooloo mu mel moom Ambroise mbooloo mu bari la am Ambroise def na mbir de def na mbir yenu na ba ci kaw door suuf bu baax a baax kooku mooy Baba Diaw waaw Thiam production moo organisé le 25 décembre comme ni ma ko waxee rek tëgg combat ñàkk jariñu ak ki nga xamante ni moom mooy Jackson général bu Malika Bour Sine Boy Mbour ah, Dour Sané Laurent Ndiago alliance Baldé yooyu yëpp ay combat yoo xam ne le 25 décembre lay am Jibi Ndiaye ngi nii moo tëgg combat tay bi Jibson maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar doomu nday Abdoulaye Ndiaye ah borom Sewleem. dëgg la ah, maa ngi lay ziar di la wax ne kontaan waaye mënu wax dara. bu baax a baax ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ndax san day sunu mbokk waaye di sunu wëla di sunu xarit nekkit nag itam nit ku baax. koo xam ne euh, baax gi nga xam ne moom la ko dëkk bi di seeli ak réew mi ca dëkk ba mu jóge rek fa la ko ko Assis Ndiaye Assis Ndiaye ak Baye Ndiaye ah, euh, ki nga xam ne mooy seen mag la fi yebal tey moo moo leen fi teewal ndax dañoo génn di masata ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm taxawaayam rafet na ci suba ñëw na fi ànd kook noonu ci ngoon itam mu nga nee toog ci kaw noo ngi koy sant bu baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf macha allah Jibi Ndiaye Ngok mon ami Jibi Ndiaye borom sew lef mon ami. Ah, ginnaaw sant yàlla ñu ngi julli ci yoon tamit di sant suñu ñaari waajur di sant sama xalifa Sini Ndiaye mi ngi Italie aar bi daaw na ko fi mu nekk ci Italie mu nekk Sénégal di la wax di sant Baye Ndiaye suma xarit di sant Kanji production jàpp na ci lamb ji bu baax a baax di sant mboolem ku ma tuddee lamb ji di sant Makan Mbeng di sant Ibra Diouf Ibra Diouf lamb ji bi mu taxawee ba léegi noppaluwul fu ma nekk guddeeg bëccëg ma nga fa maa ngi koy sant bu baax a baax di sant. Ibra Diouf a ngoog Mbewaan production moo war a tëgg dimanche dimanche biir di ñëw ma ne ko Ibra a ngi nii moo war a tëgg dimanche bii di ñëw combat bu neex Kalmu Ndour ak ki nga xamante ne moom mooy caatuwaalo Ibrahima maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. Lamine maa ngi lay fay di nuyu mbokki internet yëpp rek di la nuyu bu baax di rafetlu liggéey bi macha allah am na solo xam nga tey ñoo ngi fii ci arène nationale ci diggante arène boo xam ne suñu xarit Jibi Ndiaye moo ñu fi tey gis nga stade bi ni mel daa mel ni ba saison bi ba léegi stade baa ngi door am combat bu mel nii loolu nag ñu ngi ci koy saluer di ko encourager di ñaan yàlla sunu borom mu àgg ci jàmm ñun ñëpp ñu ñibbi ci jàmm ci barkeb Seexul Xadim di la nuyu bu baax ndax gis nañ kero bi ñu demee xombal liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey nga ko fa waa xombal gépp ñu ngi woote di remercier di ñaan kon ñu ngi ñaan incha allah dimanche la 30 octobre bés bi gën a riis boobu gën a neex gën a ala dimanche bii di ñëw rek waaw dimanche bii di ñëw incha allah fii ci arène national en direct ak Ligue TV ci armée bu ngéwél euh, ñaa euh, kee nu mu tuddati ñaa ci tey ñu doon ay xale Pikine nekk suñu ginnaaw rawatina samay mag gunge ma ay ñoom Tidiane Diop ñoom Cheikh Ndour ñoom Pape Fall sama papa Zora ma xool ne ma mu ne ma mu ne ma ñoo ngi sa ginnaaw ne ma Pikine nag di ñaanal may ko ndam di ñaanal bëru Pikine yëpp yàlla may leen ndam. d'accord bi maa ngi sant waa Casamance yëpp samay papa ku mel ni sama papa père sama papa ku mel. Ah. xale la ma wa eh Samba yi ñëwal pusil xool ni ma tax xale xale ba ma mën koo jur. da di xale. moo mag mën na maa jur. waaw waaw lu leer nga wax. Sambaram novembre 27 novembre. le 27 novembre Namine maa ngi lay jaar bu baax a baax du waaj le 27 rek incha allah. diggante. diggante Jacob Balde ak Ndigal. Uh-huh. Euh, ak combat yu am euh, solo yoo xamante yu doy waar. vraiment tey ñu ngi ñu ngi waaj daal lu rëy Lamine di nga gis lu doy waar le 27. le 27 novembre fii nga war a ñëw drapeau kan lay nekk bii ba. drapeau Omaro Gueye la. wax dëgg yàlla ñu si waaj lu doy waar. wax dëgg yàlla ma koy remercier au passage aussi vraiment taxawu na ma. aussi euh, jox na ma sponsor tamit. waaw ma koy ñaanal yàlla rek. di ñaanal mbër yi aussi vraiment yàlla dafa leen taw tawfeex dafa leen jàmm ñoom ñëpp bët. waaw waaw waaw règlement yi la leen di jox. diggante Niang bu ndaw ak Armé bu Ngéwél. combat bu neex mais tamit combat bi nag bu ñu mu ne mu jeex. ñu ci ànd ak Jibi Ndiaye borom Gibson production. waaw ñu koy ñaanal jàmm. waa diaspora bi ñu ngi leen nuyu waa Lutte TV. waa Lutte TV diaspora bi yëpp ñu ngi leen nuyu di nuyu waa animateur borom borom Espagne. di nuyu Beuz borom New York. Beuz waaw dégg naa mi ngi New York. ah man nga maa yóbbaale nag Beuz. ñoom Feugeul ñu ngi leen di nuyu. waa Lamine di nuyu. arbitre sifflé na arbitre sifflé diggante ñaabu ndaw moo ñu wan ginnaaw noonu moom ñaabu ndaw digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy armée bu ngéwal la fii ci arène nationale moo njaay directeur Serigne Mado Kéba ñëw na ci làmb jës. ñëw na. dama ne ba xam ñëw na. Kéba ñëwul Kéba ngi koy nuyu yaa ngi leewaatoo. Niang bu Ndaw moo ñu wan ginnaaw noonu Niang Ndaw kan la mujjee daan fii ci arène nationale. rëm rëm rëm bu benn baraak. Armé bu Ngéwal kan la mujjee daan fii ci arène nationale. Fourrière bu Grand ñaari mbër yaa ngi leewaatoo ku ci nekk ci victoire nga jógee diggante Niang bu Ndaw ak Armé bu Ngéwal Niang bu Ndaw moo ñu wan ginnaaw noonu ku ci nekk ci victoire nga jógee cokkaas na moom Niang bu Ndaw géej waay la jógee. mbërum maam góor góor yombul père sama peer da ngaa yéex a ñëw maa ngi woon ci kaw turbine bi père gisuma la ah, xaw ma woon ci looy yëngu waxoo ma dara directive dañoo dem mën nar ndax ndax ndax ah, man dama laa gis ma yaakaar ne dafoo dara waaye bu ma xamoon ne yaa ngi yëngal ma ñëw ànd ak yow ci yëngal bi waaye sama père loolu moom lu wér la père ñaari mbëri ñaar ñii ni ñu taxawee jàpp naa ne du boore bu war a yàgg ndax kenn ku ci nekk da jiital sa tànk kii càmmoñ kee tànku ñu day yor ba pare di léewtoo benn loxo jege yoo lool soo leen xoolee dafa mel ni ku ci nekk da nga bëgg sa moroom dóor nga remplacer ko façon nga coŋali boobu nag bu ñu ko coŋalee jàpp naa ne combat boo xam ne mën naa gaaw lool waaye xam nga règlement bi dafa changé temps bi dafa gàtt moo tax avertissement yi luy gaaw lay doon. kon lu gis nga ko ku ci sànni rek sa morom yër la ci suuf jàpp naa ne daal bii combat Lamine mën naa bañ a yegg sax dix minutes. noonu la demee père Balla Diop la suñu papa borom xam-xam lu wax ci làmb noonu la. waaw suñu père Balla Diop kenn la ci làmb. sama booy la booy booy Ada Fass la. Ah, moo tax mu toog fii di jéem a indi affaire. mu Ada daw na jël ko ñaaw ndaw jël na ko père yëkkati mu bañ da koy daan. daan na ko daan na ko jël bu rëy. ñaar bu ndaw defati na affaire père. waaw mi ngi bëgg a jeexal xale yi. mi ngi xale yi. parce que boo ko xoolee dafa yor lu mbër. merci. nee naa la mbër. taay bi day baax. mu am doole. jàng bëre. ñu doog koo jox gàllaaj. wax nga wax bi moo tax ma ne la merci dafa yor bindu mbër. xale buy dem la. day dem. bu ñu ko boo ko xoolee. taay bi baax na. état de baax na. te itam mi ngi ci yoon. te ñeme na entraînement. waaw boo ko xoolee bu ñëwee simmeekoo rek nga xam ne am na dara xam nga fi ko xale bi yegg ak la mu bëre ba ba bi ko tuur ko nga xam ne loolu ku entraîné wul mënuloo ko. nga ne avenir wu làmb la. avenir la parfois mbër. yaan din ab feeña yaan din ab feeña yaan din ab feeña bu ci biir àll bi am na pël bu fay sàmm ay gaynde si gaynde yooyu moo jël ma si ñaari karaw ñu indil si tafa mhm. si si ñu wili ne wuyu njoxoy ne njoxoy ne jógal nga indil ma karawu gaynde bi ko ɓaleejo eyi ƴetti fetel mum ina abbe barottoya ina ɗi heɓi waroy eyi yawat feere mbaɗa kattude bawal ma woto war xeen xay ndiga da eh. nga def fexe mhm. ba ci gaynde yooyu noonu mu jëm mu ci benn le 6 novembre ci arène nationale jàpp sa seen affiche point com di seetlu Moustapha Gueye ci plateau bi ak ñu ko dar ñu di wax lu leer naññ lu mel ni midi. lañ set tey ci bët duma tey ñëw si miñ gàll ci loos duma tey ñëw gaynde gi sama kanam duma tey ñëw moo war a dal ñaari mbir yi ginnaaw bi ñu la kon boog tëf.